ma ne man defkat laa. defkat waaw comme fa lan ma classé kay. man <laughs> bañal lool lan ma kenn du la fa classé te sa jarbaan ne ci kër gi. <laughs> Euh, li tax ma wane mooy. Euh, entrepreneur bi woon mm. waaw nee na ma disponible na te pare na pour commencer liggéey bi d'ici demain wala après demain. what. ah loolu itam bare na de. ah def fii quelques modifications waaw mais man de xam nga samay yére samay dàll samay cheveux. bala maa déplacé rek. ñu dimbalante ah xanaa nga woo ñooñu nga xam ni ñooy ñëw ranger la yóbbul la mais man moom mënuma ranger sama néeg man kese. yàlla na. léegi fële na de defar nga ko kër gi lépp. matériel bi instant bi ñun rek lay xaar. cest à maanaam ñun rek ñun rek ñooy jug rek. dem waaw loolu laa wax ma ne. Mhm. wax ji dañuy xëy dem laam bi nii lan laa kon lu xew. dañuy tox maanaam fan. ku ngeen yem. bii wax da yaakaar ne daal tuxu noonu da ngay xëy ni da ngay tuxu. Ah. wala kër gi moom yéen da ngeen jàpp ne yéen da fi ne. waa amul kilifa man kilifa laa. seen vie waxtaan na ceeg man dañoo war a defaraat kër gi. waaw fee tooguñu fa. waaw su kër gi pare dañuy ñibbisiwaat lu yoon nekkul ci loolu yëpp. bu xëy rek dem ñun dafa am suñuy réalité yu ñuy ci réew mi te ñun déplacé wu rek noonu du ñun du noonu bu yombee ci yombul ci ñun. kan man ak yow ak sañuy <laughs> mbokk ñun dañoo am ay amandoo ñoo xam ne buñ jugee ñu jóg ndax yaa ngi dégg. yoo xam nga ne man damay daan ay rab yu bon laa yor yoo xam ne bu ma daanalee fi amu ku may téye ah, kër dem jóge ci kër dem te defoo fa xoola bi man bu ma fontoo ndax léegi bëgg ñu jox ma xaalisu ndëpp bi ma jënd nag yi ma war a jënd nag bu ñuul dama koy jënd waaw ginaar bu xonq dama koy jënd ah. bu ñuul dama koy jënd ah. bëy bu xonq cooy dama koy jënd sama maam far seen suñu ndëpp lu mu jëli jox na ma kii ndoxu xam laal ci eh. doo daanu fi ba di amaat wax ma ko xam dara faat seen xam eh, bàyyi sa maam de dara yaa ngi dégg jox ma xaalisu ndëpp bi jox ma xaalisu ndëpp léegi xaalisu ndëpp ñaatal lépp ah, waaw bu affaire parce que nag bu ñuul la moo xam trois cent mille léegi man dinaa la jox trois dinaa la jox trois cent mille d'accord mais da dem sumbe junde waaw ànd ak Ibou Gallo. waaw ñu kii ànd ak sama maam Seen. Fat Seen demut. day wax ma ñeneen demut à partir tey tamit booy tuuti demut. ñoom ñaar daaw fu ñu ah, xëy rek ne dañuy dem xëy rek ne dañuy dem man ay rab laa yor rab yi mbër fërin yoo xam bu ne naa kirtum téye fii amul ku ci taxaw. waaw fi ñuy tuux semu bu la ko waxee di nga ko bëgg de. walla golf Alioune Sow bi mu wax moo la réer golf golf golf. fa nga daan dem semu. yow du xanaa du site Alioune Sow bii nii. Alioune Sow liñ ci. waaw foofu moom kii na parce que amoon naa ko benn jàpp bu dëgër de boobu amoon naa fa jàpp baax waaw baax na foofu baax na kañ lañ bëgg a ah, bi moom dama xaar mën naa ko rek boo jógee fii léegi dinaa woo ñu ko war a def ñu def ñu def affaire yi. non ñooy ànd ci ndëpp gi. damay bañ ko daanu fa yow foo dem daanu. gannaaw moom rabam buñ ko wayee. gis kii buy waaye rabam yow boo wër sa war ngaa daanu waale moom rabam daal day xaram ko rek rabam moom rabam moo bëgg bërëngu day daanu di bërëngu mu daanoo mën naa bërëngu fii ba sàngal kam bërëngu ñëwaat te moom du ko yëg waaw yow toogal rek man bàyyi man naa gérer loolu yow boo daanoo looy def man su ma wax ko fii su ma daanoo damay réew nag ndax xorom de lay lekk waaw di ko yëy ay puso ay paaka dama réew nu may daanoo wala damay jam sama bopp bu ñëpp foog ne damay jam sama bopp wala daaru baaxul. loolu ma trois cent mille. waa xaaral bu ñu jógee naa la jox. ah man maa lay jox du vie man maa lay ah. a ah, loo xam ne nii rek. lan la fi dig mu deñ. benn oto diggoon nga ma vingt mille te ay wuli la. <laughs> waaw jërëjëf. waaw. jërëjëf Mbaye. su na comme si te Alioune Sow lañ dem foofu moom placé na foofu moom vraiment placé na calme na. si amoon naa ko amoon naa ko nag yow góor nga xam ne amul naa expliqué dégg nga amoon naa benn xarit et cetera vraiment doxalal daal doxalal daal na yàgg ak jàmm kër gi na yegg ak jàmm. léegi nangu d' accord d' accord man amul problème yooyu man gis nga réeroo amul ñàkk a waxtaanam réeroo amul ñàkk a waxtaanam waykat bi la wax na ko <laughs> bu ñu waxtaanee rek jubóo moom kay 300000 yi moom waaw 300000 yi moom. waaw loolu la léegi yow moom xam naa ne waat bi noonu du bari comme yow nee nga bii da nga koo doon ci sa moom calan ba tax doo ko changé. bi moom doon na la moom bari na yu ñuy sànni yoo xam ne day sànni dañ koy sànni pour mu jëm si kër gi. ci yëre bi lay def moo tax mu désiré wu. waaw waaw xotti li yëpp ñoom ñoo xotti li yëpp. rab yi ñu xotti li si nekk a bari lii. yi la yi nii sànni ci kër gi moo tax yëre yi désiré waaw waaw tey ma jox la benn secret tey bu amoon kuy daanu fii si keneen nii bu ma yëre bi seetlu la bu siiw nag na yow fii ci kër gi rab ay wax daal ñoom noonu mooy la ñuy def dégg ngeen bëgguma ku ma fenal de. waaw d'accord jërëjëf boo paree léegi ñëwul ma jox. waaw tuuti lii dama bëgg a woo ma ma dal dama lekk ma allergie. Morre, morre mi ambe, no bare yawra hage. Denga. Sina ayam taw fin eh sama ne ba amma sada be. Ya tan bulan ya. Kamu ini nanti kalau doang nggak akan. Kamu ini ya, nggak nyampe terus pakai tunggu si dulu dulu. Kamu léegi sa biir bi daw ko dugg léegi yow mi ko boole ci waxtaan bi yàlla rey da nga waroon a bàyyi ba pare di wax nag naan rëcc naa ko de waaw mais pa am na lu nga bëggoon a wax nag waxi alsan waxtaan ak moom bu fekkee d'accord na pour ñëw rejoindre ñu ñu ànd ak moom dem sinon day wéet. man loolu laa programme sax parce que wax la ko man ma wax ak moom. waaw yow nga wax ak xale yi. Ah, d'accord amul problème baax na. léegi man maa ngi jëm. waaw d'accord woowaale ma papa Moussa. d'accord. Assane Assane bëggoon naa ñu waxtaan nag. Euh, bon on a une nouvelle bi tax koo neex non ndax euh, daanaka dëkkuwaay bi may xaw a ak dëkkin bi niñ nekkee lu xew ba jàmm bon jàmm la juste que dama am quelques modifications yu ma war a defaat ci kër gi famille bi mu ngi gëna a yaatu ma bëggoon modifier quelques modifications salon bi dama ko war a defaat studio modifier ko ak yeneen modification nga xam ne maanaam dañuy gën a mën a nekk ci kër gi à l'aise c'est vrai hein, surtout kuy am ay gan tout le temps moom mi ngi noonu <laughs> c'est normal waaw fay moom mi ngi gën a yaatu léegi nag euh, dama amoon idée wu déloger femme bi yóbbu leen ci sama beneen kër gi mu si pas nag euh, nan lañ nar a def ak yow. non bon dégg naa bu baax li nga wax. Mhm. mais nag pour dire vrai moom wax dëgg yàlla nouvelle bi ma annoncé xaw na doy waar loolu. yéeme na yéeme na trop mais nag euh, bu dee bu dee bu dee bu dee mën na nekk ci li ma lay proposé. fee yaatu na je sais pas ba xam nag dina la arrangé. xam nga ñëw ànd ak fam bi nga xam ne dëkkuwaay bi du yàqu dëkkin bi ñu dëkkoon day mën a continuer bu ñu paree suñu modification ñu ñëwaat toogaat suñu toog. waaw pour wax dëgg yàlla euh, dafa am benn taxawaay boo xamante ni da ko taxawee surtout sama diggante ak yow. Mhm. te franchement ñaanu may yàlla sax di dem di luye ji feneen wala may dëkk ak keneen ku dul yow. bu mhm. dul dara conseil yi may jox ak li ngay partager ak man. Mm-hmm. te dafa am foo jaar ak man mm-hmm. donc man encore une fois bu fekkee lu ma lay mën a ñaan la aussi bon fépp fooy mën di nekk mm-hmm. yow sa soxna su ma sañoon man yéen laay dëkkal dëkkuwaay bi rafet na te rafetal ngeen ko lu ma lay ñaan la bu fekkee mën na nekk fépp fooy mën di nekk man pare naa pour ànd nekk fa ak yow parce que tu es et tu représentes beaucoup de choses li ngay représenter ci man dafa bëri lool fi ma fété man xamna ko mhm. mo tax bëgguma mukk ngay dem di séparé wu ak man gis nga sama situation xadi dem na mhm. nekkatu fi man je vis seul mën na wax ni sama famille xam nga sama histoire ak ñom mhm. natali na la ko euh, bëgguma dem di la fi bàyyi te bëgguma aussi nga dem bàyyi ma fi su soñu ma dëkk ak yow bon man ci sama côté du metti ndax déjà loolu mooy sama souhait yow laa doon xalaat euh, ba xam dëgg-dëgg dina la arranger nga ànd ak ñun ñu dem fay. bien sûr ça m'arrange loolu moom. <laughs> kon alhamdulilah loolu moom day a neex rek <laughs> sinon yow xari dégg naa ko tudd turam sax foo koy dégg xari moom. grand daal xari daal bon maa ngi koy dégg Gambie daal lañ ma wax. Gambi, waaw samay recherche nee nañ ma mi ngi Gambie ba tey nag mënuma ko joindre xadi lan lay war a Kau Gambie xaw ma xaw ma xadi musuma wax ni dafa am mbokk Gambie te man musuma yëg ni xadi amna na mbokk biir man lu fay def moo ma moo ma moo ak mais dañ ko fi bundu xataal wala luñ ko fi def ba tax na mu dem non mais man j'arrive même pas à comprendre ah mais en tout cas doy na waar doy

yàlla mhm. mhm. baax na en tout cas naa quoi pare naa. d' accord am problème bon dama la ko doon wax rek pour nga préparer psychologiquement non y' a pas de bu doon dama ne bu doon kili koro sax man may xëyee kër ga. di dem di liggéey di wàcc. am jàmm. moo ma gën a alhamdulilah waaw macha daal. kon baax na yàlla yàlla def jàmm. amiin amiin yàlla yàlla def jàmm. jaajëf. tegoon naa ataaya ah je te. na ñëw na ñëw. man de instant bi d' accord ah Euh, Kia ah? man maa ne papa Moussa mu woo la te ngeen ñëwaale comme yàlla dogal na ni sama sœur nga dañoo bokk nekk ci kër gi bala maa waxtaan ak xale yi damay waxtaan ak yow ba pare alsaan mi fi nekk na comme góor Sémou dana waxtaan euh, Vieux dina waxtaan ak moom ndax li ko waral mooy euh, Vieux da doon tabax beneen këram

def ko studio ak salon bu xaw a yaatu tuuti voilà defaat kër gi beneen modèle daa bi mu ko waxee tamit d'accord naa ci parce que tamit comme kër gi depuis loolu papa Moussa fii ci du fii la màggee yoon la mu changé waat décor kër gi. mais ci kaw moom ci suuf ñun ñëpp. <laughs> xam naa dangaa fàtte ni nag famille lañ de famille lañ de. mais maman attends maman lan laa dégg déménager. Mhm. alhamdulilah ndax sax ñu jógee ci kër bu bari problème bi. pour yow problème bi da lay teggee ko. dootuma sa papa nee na buy dem alsan day dem parce que xadi su ñëwee fan lay nekk ak alsan su dee xadi ñëwul te alsan day takk beneen jabar yow wala yow da ngaa fàtte alsan sa cousin wu papa la sa ñaari maam yee bokk ndey ak baay de bu ko fàtte de. dafa sikkoon rek ba mel ni jàmbur de waaye sa mbokk la de. waaw xaaral ma wax la rek xool bu leen yàq xew mi nag Assane bàyyi leen ko mu dem kaw ñibbi na si mu ngeen delloo ko. delloo gis nga rythme moom jonga maa jor jokkar leen njaajaan njaay gi tàmm naa ko ba pare na fuur rek Moussa. yow moom ruubee gaale bi moo la neex. waaw loolu laa bëgg moo may dundal. mais attends sa papa fa la sax. Aliou Sow ci côté géej gi. moom est-ce que xam nga benn affaire. waaw affaire yi gën naa neex. ndax la. Hmm. ndax sax may gis sama moroom yi parce que gan bu may ànd ñëpp foofu lañ dëkkee. ñi ngay basketu ndool. ñoom day Kumba. waaw ñoom euh, Ousmane Ndiaye. waaw côté boobu lañ dëkkee. ça fait l'occasion mooy gis nag. léegi kon daal yow sa arrangement ngay xool daal. te daal yow moom. nga wéetal bili. waaye fii de soriwul bili nay déplacé wu di ñëw. bili après mën na ñëw pas weekend muy ñibbiwaat. Eh, eh, eh, da nga koy inversé. Ah, bien sûr. ah kon neex man da lo bëgg and na comme kontaan ci tuq bi yow rek la ci doon xalaat nag. dal li ñu ci soow yi li nga wax léegi ni rek. waaw nag papa nak bàyyi len rek nag ñoom ñëpp nag. papa bàyyi leen rek nag at na mu solo. ki ya kon bu ngeen wacce nga woowaaleel ma Kumba ak seyna Seynabou. non waxtaanaguma ak ñom xaw ma bu mu ngeen mu nara na la a xam. ah ñu dund ko comme ni ko ñëpp dundee rek. d'ici quelques mois dañuy delu ci wat fi kay lolu yomb dañuy dellu si waat de. man dellu si mooy man foofu ngeen may. ah toogal ci appartement boobu dégg nga. merci. man mën naa leen defal sama saak en temps. waaw mën ngeen dem commencer ranger. ñu dem waaw dama ranger la ci. woowaaleel ma Kumba ak euh, Seynabou. Fall. na xawaar. si waay sëñ Pawlish. ak ak tey. Sandi ya lo ziyaare de. Kelo Kalau siapa? Ɗum sih deh Ah, gitu nggak nih si tuh tuh si reng boy enggak dëgg. Di juga kadang daanu yaa am gën a ah. semua Si sama waay. Waaye ni nga génne seen kër ba ya, sa colin bi nii sa yaram bi yëpp moo ci biti may wax nga tàkk chaîne jël sa bagage yi rangale ci sa loxo yi ba kenn xamul loolu et puis l'islam nanguwul li daal yow jaaxal nga ma ci yow ku fi ñëw nga waar ko waar a waar a waar ba kenn xamatul lan la wala ñu nekk ñu Arabie Saoudi nekk ñu Mauritanie ñoo ngi fii nekkuñu tamit Màkka arrêté waaye nag ah nga bàyyi sa yi li moo tax kenn du fi bëgg ñëw boo yëpp loolu la ñuy waxtaanee ku fi ñëw nga waar ko arrêté. yow yaa ngi mel ni ku jàngul alxuraan te man ak yow ñoo nekkandoo woon daara ñu ba ni ñuy ñibbisee changer sa comportement bi da nga yor comportement bu baax. Jaham kang dahan. Oh, kumalo sa. Ani sa manan ni? Mangker. Ani sa bayan? Sa bayan mo. Ni si Jambo ba? Si Jambo. Alhamdulillah. Yo, kumalo sa yo. Gingit sa papa. Sa papa. Gingna, gingna ko di gingna ko din. Jo bela jak, mo no dem sa papa. Mayo kumalo sa yo. Ya. Eh, ñu ne sa doom mag bi dafa fàkk kan la ci ñoom xadi xadi waaw xadi bi ma dégganteel démb mu dem lox ci sama yaay seeti ji ko démb rek ñoo ngi déggante nga ni dafa faat waaw booy wax ma leneen fii sax yow foo déggee loolu dëkk bi ñoo doy waar dëgg dëgg dëgg dëgg es bi foo romb xadi daa fàkk xadi dafa fàkk xadi dafa fàkk kese ngay dégg kese xadi dafa faak bu ma déggantee xadi démb rek man dëkk bi laa ko déggee nag ma ñëw di la laaj xadi mi ngi Kawlax ci sama yaay moom la seeti xadi <laughs> faakul de <laughs> mais man sax dama fi jaaroon dama doon dem place ne naa fi jaar nii rek damay dem géej tul ndox ni xamoo ndox de yaa ngi mel fi toogal di waare rek ñëw ngeen déedéet woowu leen damay bëri ci escalier pour wàcc ci suuf. dama bi moom naa yaa ngi woo. mel ni yónnee wu. waaw man maa ne kii ak papa Moussa ñu woowaale leen ndax dañuy waaj a tuxu. ah waaw. kon nag nee nga kii mooy dof yow yaayu dof bu mag bi. Ah. waaw tortu nim saa nii xam na boppam. yow noppi amoo loolu yow boo tëddoon ba guddi ñu ne la vie day loué di nga ko gëm vie am na ñetti kër macha allah benn bi mu ngi yeen ak bi ñu nekk ak bi ñu war a tuxu dafa war a changé waat modelu kër gi defaat ko ay studio defaraat bu mu gën a nice su ko defee yow sax nga am sa appartement wu bopp. Hmm. man nag lu may am yow fu na fi mbay ne yaa ngi fa. man moom xam nga ne man foo ne rek dama fay am jàmm. Ah, kon mënoon nga maa bañ a woo rek yaa na ma ne takkal say bagage. man naa ànd ak na fi mbay rek. ñu dem sa yaay baax man yow yow mënoon nañu bañ a tugul nag <laughs> yow a ah, ma xam koñ bi ñëpp a ah, ma xam. sëñ bi tàcce nga fi. sëb la nga kon yow lañu xam man kenn xamuma tojuma. si sa sa loolu la ñuy wax. loolu la ñuy wax kon yaa jël ci sama tournée Seydou. dafa faa da koy da koy nëbb rek dafa bëgg de. oui ba léegi dañuy tuxu cité Aliou Sow ci wetu géej gi yow da bëgg géej nag. wetu léegi kii du yow. boo demee ne te géej gi di pëccax pàccax. si la nga ci wetu géej gi nga war a jëm nii nag. nii nag man fu léegi nag sëy na ko ku ngeen demee ngeen góorgóorlu jàppoo doon benn sëy na man aw ma ku dul yow ñoo bokk ndey ak baay. wóor na yàlla seen sama xol bi boo ko ubbee yaa fa ëpp papa Moussa place vie mi sama jëkkër sa yaa fa ëpp place bu ko gorlo bu xexati ay seyna bu xuloti defati dara teng kuma top toppal ci seyna bu sa mak la lum la sant ne ko waw lum la tere na nga baye jora lañ ko dénkoon de dalay ray li jola biñ la den ko num ki waaye ah kon gëm-gëma legi tan màgget baaji lii de yëguma ko tan màgget baajee ko nampal ah li la sey ko sama man sey na dama tok di amna lu mo wax de dama xam ki kii jola dere deretu jola si yalla kay yow mii boo xatoo suñu fan yi yow guleer sëy na bu réer alhamdulilah sëy na bëgg na fañ jëm wa yalla baax na kumba jàmm ak salaam fekk fa xéewal xam nga bu foofu dàqee sax du jël ñuy ñëwaat. ah nag ah. waa gis calculement dañuy tortu. tortu Nimza. naa la delloo kër taa màgget baaji de.